bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tey mooy guddig ñaar fukkeel ak ñaar ci koor gi naafila tey gi ñaari rakka la rakka bu ne fatiha benn yoon sabbe xisma ak inna ansalnaahu ak lixlaas ak falixa ak naas ci nekk ñetti yoon ma baamu ko ñaari rakka la rakka bu ne sabi sabi isma rabbika la'la ñetti yoon inna anzalnaahu ñetti yoon xul wallahu ahadun ñetti yoon fàllaxi ak naasi lu ci ne ñetti yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu